secrétaire exécutif adjoint district euh, Gaspard Camara di bokk ci district sanitaire sant nekk président ASC si e commune bi ah man de je vais orienter mon discours sur la jeunesse la jeunesse sénégalaise la jeunesse consciente en tant que jeune di leen ñaar nekk cette pandémie il faut pas ñu koy foowee c'est une pandémie qui existe au niveau mondial ñu koy dund chaque jour di gis ñu ñu jege di gis si niy waaju di si wàññeeku ma doon sensibiliser si côté wu geste barrière yi moo tax tey la commune de Fann Point Amitié avec le district centre Gaspard Camara avec les actions euh, acteurs politiques de les les hommes du cabinet de Abdou Karim Fofana ñi ñi ñi doxaloon lii pour ñaar sénégalais yi que feebar bi lu existé la dugg ci commune Fass Point Amitié def action communautaire ñaax nit yi ñaax si ni euh, euh, famille ñaax si ni dëkkandoo si ni pap yeeg yaay yi il faut que ñun ñu protéger leen wax leen ne il faut que y des gestes barrières qu'on doit respecter cette action communautaire suñu duggee ci kër yi danañ maye ay gel hydroalcoolisé danañ maye ay masque danañ sensibiliser aussi les familles les populations que feebar bi c'est une pandémie qui existe et il faut pas négliger donc je vais orienter sama discours ci sens boobu ñaar la jeunesse sénégalaise debout comme un seul homme xeex pandémie bi mu juge fi yaa a beaucoup de discours nag ci ci Sénégal éviter les grandes places éviter yenn regroupement yi muñ yàggul xeex feebar bi on est en en guerre xeex ko mu jóge fi incha allah mu nekk si ni ginnaaw wasalaam